من la الأمر يا من لا شريك له وفي وما للوعد لذيك يا الله mais gars yi Boucher Ketchup mi ngi nii ah en direct c'est Serigne Saliou Ndigal Thioune ñaari question ah gis nga sëñ bi léegi ah. ñu ngi ci laa bi. Hmm. yaa ngi ci àjjuma samedi dimanche di màggal waajtaay bi ak sëriñ looy wax. looy wax si lan. ci màggal bi. màggal li ma ciy wax ci garaam loo ciy wax. ci laa dëkk. di ci wax. waaw kon tey rek laa war wax. waaw. màggal gi mooy sama yitte. waaw moom rek laa bëgg. waaw moom rek laa naw màggal gi rek laa gëm moom laa xam. Hmm. màggal gi laa miin te moom laa tiitaroo. Ah, waaw mais Serigne Saliou Ndigal Touré. Hmm. gis nga ko. li fi bàyyam bàyyi mu téye ko. macha allah gis nga nag yi bi mu ñëwee dafa yokk waaye wàññiwul. noo gisee loolu. loolu chaque année nga gis ko ren bu defee téeméer gannaaw suba bii di ñëw loolu bu Serigne Saliou ndigal cuun bu Cheikh Béthio loolu borom màggal gi la mooy Xaadimu Rasuul moom moo ne sama tey ju la dana gàcceel sama démb maanaam yoonam wi luy ñëw rek day gën a riis ci kenn ci man mii nu ma mel ren man ci màggal gi laay nattee sama bopp ndax maa ngi avancé wala avancé waaw lu ma am ren xam naa ko bu ne lu ma am xam naa xool su ma wàññeekoo rek dinaa xam ni liggéey bi muy liggéey bi muy liggéeyal sëñ Tuubaa ah, ñu gis benn image yow ak Omaro ak sëriñ bi maman na nga dimbale ko ndax li nga ko dimbalee mooy am na ndimbalul mu jaare ci yow sëriñam sant ko ndigal te taalibe bu ne lool ngay ñaan waaw xam nga man ci yooyu laay dox man lu baax rek laa bëgg lu baax rek laay wane lu baax rek lay def moo tax ma indi ko ñu toog ma jël ko fësal ko sëñ bi dimbaliwaat ko ndax Omaro nit ku baax la xol bu rafet la yor hmm. tey Omaro tey mu ñëwaat yeesalaat njébbalam mooy yoon. ndax xol bi dara newu ci. lu muy def ab po rek ko ciy euh, mm-hmm. waaye xol ba dara newu ca. Mm-hmm. te ku baax la te taalibe Sëñ Tuubaa bu bu bu di amut. kenn wayee di wut. nga gëm si tubaab bëgg ko. mu ñor la. neex la. nga wóolu Sëñ Tuubaa. Mm-hmm. loolu waye loolu loolu mënoo waye di. nii rek nga ku la jàppee waye di koo waye di. dëgg la waaw barki Cheikhul Khadim. bi ne ko watu jël. mooy yéere tubaab moo fi ci waaw yéere tubaab bi. Ah, ah. ñëwaat bokk ci njaboot bi. Ah. loolu rek la. léegi ñëwaat ci cant fu la neex mën nga faa dem waaye teewul nga doon ki nga doon. maa ngi nii fu ne laay dugg. ma dugg ci ndax loolu la ma réew mi xamee. Mhm. fu ma wax ñu ne ma fa laa war a waxee. waaye du tee ma doon ki doon mooy taalibe Sëñ Tuubaa bu lépp paasee rek. taalibe Sëñ Tuubaa rek ngay doon. waaw waaye bu sekkee ca mbokk yi musée ngi noonu yaa ngi doon wax euh, ci Serigne Saliou ndigal ci gis nga nag yi mu indi macha allah. waaw ñu gis ku mel ni. yow añ nga doo ñëw añ ba pare. añ naa man añ naa ba pare maag sëñ bi ñoo àndoon kër sëñ bi gis nañ soxna Aida nag yi mu indi. bari na macha allah moom tam mu koy jëf ci màggal bi. mënoo bàyyi sa laaj yi ngay laaj. dina non bàyyi laaj yi man bu fekkee da nga maa bëgg a jël te dëgg rek tax laa jóg. waaw laaj yenn laaj yaa ngi ñëw ci màggalu Sëñ Tuubaa gi yaa ngi kër Sëñ Saaliw cuun gis berne gis yëpp nga laaj ma lu am ful bu ma laaj yenn laaj. soxna Aida du laaj bu am ful. la bu fekkee la mënoo maa laaj ci màggalu Sëriñ Saaliw cuun gi berne ak nag yi. bul léegi teel sa caméra bi eh. waaye buuse waaye buuse tàng nii. eh ma ñii ñu añ. <laughs> waaye buuse waay. buuse nee na du wax ci loolu ah. yi ba te yéen a ngi jànnatu. en direct mbokk yi en direct c'est Serigne Saliou Thioune ndigal jànnatu ak seen chef. daa waroon na jaar yoon. waaw waaw waaw. na daa jërëjëf mbokk yu Bour Gueweul TV euh, dellusiwaat nañu rek euh, màggalu Touba yéen ngi en direct jànnatu kër Serigne Saliou Ndigal Thioune waaw taalibe yaa ngi ñëw di ziar génn na léegi xool nag yeeg base bi dernier réglage yi. day ma ni xam li mat a nekk li ma nekk ci moom mooy am ndox lu mat a nekk lu mat a nekk ah moom daal ah waaw bañ a ñaan ñaanal ko moom mooy ñaanal ko ah waaw da ngeen ko da ngeen ko da ngeen ko santal da ngeen ko sëñ bi waaw góor waaw jàmbaar la ah non jàmbaar la ndeysaan waaw moom comme ne bi ma déggee dafa doon dara ci tànk wu waaw muy def rek boobu li ma wax ne maçon yi maçon yi benn wala maçon yi naan waaw ah waaw man di ko coy loolu amul xaar waaw

ci màkka ci sañte sax Amaro, não, não, não, não, não, não, xam naa day xat mën naa am ci màggal bi waaye bu fekkee ne woote naa da ngay jàpp ni moom fekkee waaw waaw jaajëf mbokku internet yi gis ngeen ko ñu ngi en direct kër Serigne Saliou Ndigal Thioune euh, génn na léegi xool nag yi mbokki taalibe yi indi ak xéewal yi nii indi dem na ci baas bi xool dernier réglage yi nga xam ne euh, ñi ngi ci yéen a ngi en direct euh, mbokk yi Serigne Saliou Ndigal Thioune bëgg na lu fiy bawoo rek fii ci Jannatul waa incha allah mbokk yu internet yi dina leen ko dégtal jërë من لا شريك له وسيو ما للوعد لذيك يا الله